<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi euh, maa ngi leen di béggee bu baax di leen jiar di leen jox seen wàccuwaay xëri la sëtub kocc bi man na kanja man na fi moom sëtub kocc bi ci wa zaahiran ak wa man gars yi ku ko dise yaa xam coowal mburu wax dëgg yàlla mi ngi bëgg a lëmbe réew mi euh, état indi na ay proposition am teg ci fariñ ba wàññi ci lu bare bare bari nag waaye ñi nga xam ni ñoom ñooy xawma xawma xaw nu ngi koy sax ñii ngeen xamul nuñ tudd sax man da fàtte tur bi sax miñee les miñee bàyyi miñee neen da coono am ngeen jàmm naka talax-lax réew mi mbaa ngeen yabu leen ah bàyyi miñee yéen a ngi bëgg a lu seen bopp ci gratuite nag ndax li nga xam ni moo di état cof na li nga xamante ni moo di mburu mi cof-cofaat sax la ñuy wax wàññi woon na ko e, gars yu bari taxaw ni maanaam quinze francs yi lay wecc xëy na mën naa compliqué état dugalaat ca loxoom maanaam e, jël alalam def ca pour farine bi mën a wàññeeku ñu wàññi farine bi ni léegi mis bi nañ ko jaayee cent cinquante quatre-vingt-dix pour cent nag ci population bi instant bii ñu ngi jënd mburu mi fanweer ca Ndakaaru Njaay bari na ay quartier ak ci koñ yoo xam ni tey tey tey cent cinquante la ñu ndékkee kilo mburu loolu naa ci ñëw parce que nag kilo yi ci réew mi matuli kilo ba pare ñun kilo lañ koy tuddee kon damaa bëgg a xam tamit ñu waxtaan yëf yi maanaam kilo bi ban xeetu kilo la ci kilo yi manam ban tu kilo la ci kilo yi loolu war nang ko waxtaanee parce que kilo mburu la wax te mburu boo bëggee dégg-dëgg xaaju xaajaatu xaajaatu gen wàll liibar mi sub mburu matu ko kon loolu lëfa ngi ci mais bi état wàññi li nga xam ne moo du mburu mi wax dëgg yàlla wàññi faring bi pour ñu wàññi mburu mi dafa am ñenn ci ñoom ñoo xam ne ci seen njiit ñoom neen d'accorduñ ci wàññi bi li waral lool nag ah, wax dëgg yàlla dañ koy waxtaane ndax réew mi moom boo bëggee dégg-dëgg Euh, xam naa euh, lawoon woon na mënuñoo comprendre wàññi mburu mi ak coowal mburu ñu moom boo xefee gàtt sa gàtt sa na ci am loolu moom euh, daa mel ni maa ngi koy gis nii maa ngi koy gis nii ndax wax dëgg yàlla état bi ak état ba woon bokkul kon dañuy déglu kenn ci seen i njiit mu wax ñu lan moo tax ñoom mënuñoo wàññi mburu mi jaayee ko fanweer ci yenn raison. wula bu ngeen nar a wàññi wàññi leen juróomi dërëm mais nag bu ngeen ko nar a wàññi juróomi dërëm la conséquence mooy faaw ngeen wàññi farine bi 6500 par ak. yeneen yi nga xam ni moo yokk si diggante bi muy courant bi levure bi améliorant bi parce que lépp noonu la deme moo tax ñu xayma ni bu bëggee loolu rek il faut nga wàññi cinq cent ñoom tamit ñu ne ñu donc volonté pour volonté bi ñu am mooy dañuy wàññi vingt cinq franc léegi ñu toog ñu recevoir meunier le matin ñoom xaw ma lu ñu fa wax ñun bi ñu ñëwee ñu ne ñu ok léegi danañu baissé quatre mille franc si njël li ñu ne ah nous avons dit que nous sommes d'accord sur 4 francs, nous avons dit que vous avez décidé expliquez nous, écoutez, ce que nous avons fait, parce que nous avons 160 millions par jour, moins 4.000 000 francs, nous considérons parce que si nous avons en moins 2000 à 2.100 tonnes de farine nous avons par jour, nous avons dit que nous avons 160 millions par jour, plus de 57 milliards. Ah, vraiment, vous avez fait beaucoup d'efforts ñun tamit aussi dañ leen joxat beneen amendement mooy su fekkee kat ñi ngeen yam gis nañu li ngeen def bëri na lool kon amendement bi leen jox mooy premièrement mooy ñun le pain da ngeen ne da nga homologué que ñun buy client bi di jënd mburu du fay TVA kon léegi toutes les autres TVA yu ñuy jël rek day nekk charge suñu te yéen ngeen ni aussi le pain est un produit social mooy nekk deuxième poste de dépense des ménages dans les villes kon dans ce cas su ngeen bëggee wax li ngeen di wax moom ngeen woote TVA bi nga xam ne moo nekk si diesel oil bi ñooñu ngeen teggi leen cette TVA la benen bi moy levure bi ak amiant bi nga xamni mo moo ñuy xex ba bëggoon génn ak courant bi bi nga xamni mo moo taxoon bëggoon génn grève bëgg grève ba bëgg yok yokk juroom juróom kon bu ñu joxe 4000 yi lu koy compenser mën na ko jëlee fi si loolu lañ ni ok li concerne ministère des finances bi câblé ministère des finances ñoo tam ñu ne ils sont ouverts pour cette discussion là lo tax ñun boulanger ñu ni kon amuñu consensus si farine bi. mais am nañu consensus dans l'ensemble ensemble bëgg accompagner la volonté de baisser 25 cinq francs. il faut que les Sénégalais comprennent on est dans un état de droit. ba tey may wax yow nii arrêté bi génn kon arrêté sagam génn. kenn mënu ma jaayloo mburu mi cent cinquante francs. kon yow wàññi wala. non mënul nekk actuellement nii ku ko def mais ñun dans notre volonté dañ ni boulanger boo xam ne jàpp nga ni yow mën nga def. nga def ko mais dama ne actuellement ni tank que arrêté bi. bu lay wax ni poids bi ngay jaayee ak yi mëno wañi <laughs> eh, Sénégalais ñoko déggando koku ñann la ci njiti gaay nga xamni ne yor walu mburu mi fi ci réew mi Sénégal mom nee na a mom a sa part personnellement manam mom nee wañi wul keneen ku mëna wañi na nga wañi euh bay Boy di nga wañi ci waza Iran ak wa batiman yaay wañi ci far force fara force doolay mbam maanaam force restera à la loi da ngeen ko daan dégg Macky sàll jël fetal jëmale ko ci nit ñi te alors que bu ne force restera à la loi c'est pour ces genres de maanaam euh, euh, euh, mbir yoo xam ni wax dëgg yàlla état da ciy waslu àq parce que nag yéen boulanger yi attends ma wax leen benn affaire yéen yor wàllu fëriñ beek mburu mi ci réew mi yéen Macky sàll bu masa yéen makki Sall moo leen bay bayal parce nag maanaam Macky Sall bu masaan taxaw ne dañuy wàññi mburu mi nga dégg ñu génn waa mburu mi buñ ko wàññee dañuy grève Macky dellu ginnaaw comme moom ragal la moom force restera à la moom ci nit ñi la ko jëmee woon waaye nag euh, bàyyi boulangerie ak bàyyi grand moulin yéen ñi yor wàllum fëriñ ci réew mi barke yow mal xuloo jël basat di ngeen xam ne force restera à la loi gis ngeen tabaski bi ministre de transport ni mu demee ak ni mu doxalee bi ne wàññi leen paas ñu lànk da ngeen wàññi mburu mi ci waja iran ak man far force fara force dole mbam parce que état dugal na loxam ci mburu mi à 100% pour cent état wàññil na len lu nek bari li ngeen bëgg nag moo mënul yeen jaay jaaykatu mburu ci rew mi bu len ñu fonto li ngeen bëgg mënul nek am na bénéfice bo xamni bu ngeen ko bëggee da ngeen di dem ba Chine mba Corée du Sud mba Corée du Nord bu len ñu fonto am na benn bénéfice bo xamni mom dongu dong motax nangulena tax mburu mi benn miisu mburu bu nekk nga bëgg cee am fukk ak nangam bénéfice loolu dafa ñaaw dafa dafa jaaduwul sax loolu dafa salte sax bénéfice bàyyi leen xeeb bénéfice bu leen ko xeeb li ngay wax nii waxi dof la ay wàññi leen teewaa bi teewaaye nga xamante ne dañ koo te waxi dof la amoo lay amoo lay amoo loo wax te mburu mi xolal di nga ko wàññi ci yow yow yaay wàññi ba Moussa Ndiaye kontaan yow boulangerie yi nekk ci réew mi genre gi ñoo leen di influencé barke yow man ba basar wàññi mbaa tëj wàññi tëj wàññi mbaa tëj wàññi mbaa tëj pour muy leer wàññi force force e neexaluñ ci benn doomu aadama état neexalu ci benn doomu aadama gis nga gatsa gatsa nag fii la ñuy xamee gatsa gatsa gatsa gatsa dina tàmbali bientôt parce que yéen da ngeen ñuy fontoo yéen jaaykatu mburu yi ci réew mi du ngeen car rapide du ngeen biis bu leen ñu fontoo maanaam état wàññi na li mu mën a wàññi wàññi na bu baax a baax a baax a baax a baax teggil leen ay taxes yéen ñëpp ngeen xam ne teggil nañ leen ko kon xam nga lan la ñu bëgg état li mu wax te état doful jinne jàpp ko gis nga état du leen wàññiloo di leen di lor xalaatu ko état du lor kenn wàññiloo la fekk la sam njaay di la ko wàññiloo ba pare di la lor du ko def état bu toogee ba ni la war ngaa wàññi génnee décret ni la war ngaa wàññi fam teg ni war ngaa wàññi xam na ko état lorul kenn te mburu mi daa war a wàññeeku. mburu 150 baax na doy na sëkk doy na sëkk fëriñ bi dañ ko wàññi ah waxtaan nañoo ak yéen du benn yoon du ñaari yoon ah tegal leen ci som boo xamante ni wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mësta am ci mim réew mësta am ci mim réew mësta am ci mim réew maanaam pour ngeen wàññi dund bi pour ngeen wàññi mburu mi di moins léegi nag mburu mi moom ah barke yow mal xuloo jël basar basaree bàyyi booy yaay wàññi ba Moussa Ndiaye kontaan mbaa nga tëj ah ci fer pele sans dépend nag ci yow yaay wàññi far force fara force doole mbaam barke yow mal xuloo jël basar parce que yéen seen genre gi ñooy influencé yenn sax ci ñenn ci ci boulanger yi fii ci réew mi senegal wala ay boulangerie état ciment moo gën a compliqué mburu mi bu leen ñu fontoo ciment moo gën a seer mburu mi gën koo compliqué te état da ko wàññi biñ demee ci industrie yi nga xam ne ñoo defar ciment fii ci sunum réew li état li leen état baaxee wàññil leen ko ci ay ay ay impôt ay ay ñoom seen yooyu TVA ak yooyu ngeen di wax état nam ko wàññee yéen seen bopp ñi yor wàllum ciment xam nañ ni lii jaadu na xam nañ ni lii mën naa nekk et cetera et cetera et cetera. ñuy wañi di wañi di wañi ba ñew ci yeen yeen wa ak lu mburu wax deug yalla euh manam lan motax ngeen nap ñu yeen ñi defar mburu ci mim rew kon mburu dafa doon manam ben euh alimentation bo xamni wax deug yalla comme genre baxu mam rek man sun histoire ak mburu ñu nit sénégalais ken xamut dan la ken xamut lan la ay ndekke ciéré hein ah, ndekke fondé yépp amon na waye amatul légui boy bo xey jox ko ciéré ak né wala fondé mu sanni lako kon ben essence waa mburu mi ñoom loolu la ñu xam ba téye ñu ci poñ quoi ñoom nee na eh, yaay ñoom ñoom mënuñoo ñàkk. est-ce que xam ngeen réew mi réew mi lu ko delloo ginnaaw rek mënta ñàkk mënta mënta ñàkk ñu ko yóbbee réew mi lu ko delloo ginnaaw mënta ñàkk ñu ko yóbbee yéenay wàññi mburu mi ci wa ja iran ak wa baati man ku koy di nga wàññi ba mos ya bàyyi yaay wàññeek say lex <laughs> yow yow yaay yow yaay wàññi yow yow ma keneen sax bu taxawoon ni du ñu man ni waaye boulanger waaye yow yaay wàññi ba mos a jaay kontaan yow di nga wañ ci wasa iran ak wabati man mba nga tëj sa boulangerie parce que euh dama len koy waxat force restera à la loi ci faire pele non force restera à la loi Macky Sall nak bu ko masaan wax mom arme lay jël dugg ci biir population bi nan len force restera à la loi bu ne force bu soxla manam état wala wala wala loi utiliser force am c'est pour genre euh, genre affaire yu mel état jël ay décret jël ay mesures waxtan waxtanat li tax yow nga dan jaayé mburu mi cent soixante nangam wala 200 manki yu wu sew li tax nga ko dan jaayé mburu mi état teggil la lolo pour nga jaayé mburu mi fanweer yowee sa bop yow xép xép bénéfice la xép bénéfice la yéenay ci fer pelé barké yow man xuloo jël basar pam du new hé eh, di yaay bay booy yaay wàññi mbaa nga tëj ci fer pelé sans dépend ci climat bi sans dépend ci yéen parce que nii nii may wax ak yéen Dakaaru Njaay euh, à quatre-vingt-dix pour cent ci population bi tey fan weer lañ jënde mburu kon yow bàyyi booy foo na ci réew mi montre toi mburu mi di ngeen ko wàññi da ngeen koy wàññi di ngeen ko wàññi parce que population bi état dugal na ci mburu mi loxoom maanaam lu tax wala lu jar ñu wàññi mburu mi kon nanu ko wàññi force neexaluñ ci kenn wàññi mbaa tëj sans dépend ci climat bi affaire Macky Sall yooyu amatu fi de wàññi leen mburu mi euh, euh, wàññi ay ay ay impôt ci kaw mburu mii taxi yi leen tegoon yëpp ñu wàññi ko ba pare wàññi loo leen ngeen ni mën a ñëw wàññi bu Macky Sall insisté ngeen génn grève arrêté barke rasulaay di ngeen xëy làkk mburu far force jaayee ko fanweer far force te ku grève ñu rëq sa ndigg ci fer pele réew mi daa am droit am loi am ay yoon am ay sart yu dox yu yu way yéen yéen yéen yéen bàyyi len ma way ngeen nan ma mburu sima gi na ser mburu diwlina gi na ser mburu gi na ser mburu ta biñ ko wañe commerçant yep d'accord na ni lii jaadu ah kon yow état dina wañe mburu di len lor ah ndax lan beugub deureum beugub bénéfice ay bénéfice 100 pour mënul ne di ngeen lak mburu mi force jaay ko wer force mba ngeen tecc ci fer pelé li la Baye wote ak Baye Sonko ku kurise yaa voilà pour muy leer ngeen ni layam layami noonu lu ñu wax ngeen ni wéy dafa cee wéy état dafa waxtaan ba kañ yéen kañ xanaa du ngeen doyal waxtaan yéen yéen yor wàllu mburu mi chaque année bu ñu waxee waxu wàññi yéen rek yéenee problème bi lan moo tax wéy dafa war a ñëw waxtaan ak ñun parce que am na loo xamante ni ah yenn naafeq yi di leen ci jàppale xanaa waxtaanaat yéen ñaata yoon ngeen bëgg waxtaan na kañ ngeen doyal waxtaan nag wax dëgg yàlla xanaa yéen da ngeen am problème waxtaan ku ngeen waxtaanal seen kër. ah xanaa yéen da ngeen am problème diisoo minute minit wéy état dafa war a ñëw waxtaan ak ñun état yónni ndawam ñu dem toog waxtaan ñetti fan ñeenti fan wéy état dafa war a ñëw yéen lan lan ban problème ngeen am ci toog ak état waxtaan ak état quoi xanaa yéen da ngeen am maanaam plaisir u jàkkaarloog ministre nii di waxtaan ak moom ñaata yoon waxtaan ñaata yoon jot na dafa jot instant bi ñu appliquer loi yi état nee na. ñu wàññi mburu mi li tax ñu war a mën a wàññi mburu mi mooy moom jël na ci kàttanu boppam def ci wàññi yenn euh, euh, euh, fere yi nga xam ni yéen ay taxi la xëy na daan ngeen ko fay ak yooyu mu wàññi ko léegi lan ngeen bëgg yéen ah lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg ngeen di fontoo nit ñi naan bu ñun mun yaay wàññi bay booy ba Moussa Ndiaye kontaan barke yow mal xuloo jël basar contrôle de prix nak ñi ngi ci rox-roxi ci réew mi di talax lax yi barké yow man xulo jël basar képp kuñ ci japp man mom ma kenn wo intervention voilà man mom ma kenn wo ko dama naa la ñewuma parce que nak information bi dawna ñepp yegg nañ ko ku ne xam nga fi mu ne nii ni mburu wer lay jar yeen ñi nga xam ni yeena jënd jëndi ku dem di jënd fëriñ ñu wax la ci lo xam ni yow yow mi jënd fëriñ bi pour lak mburu jaaduwul te yow sa bopp nga xam ne état wàññi na farine bi wooteel numéro weer yaa ngi curux curux ci réew mi mu jaayee la ko li ko état génne ci fer pele parce que nag suñ euh, suñu kudd jàmm la ràcc de gatsa gatsa ji nag ku nu ci woo ñu wuyu la ndax gatsa garsa tax ñu doon dem pale tey barke yow man xuloo jël basar ñun bu ñu demee pale tey grâce à gatsa gatsa kon nag yow bàyyi boulangerie yi comme gatsa garsa nga woote ci fer pele ay waaye dinañ la wuy si ci fer pelle barke yow man xuloo jël basar te mburu fanweer mbaa wer mba tej ci fer pele ku kurise yaa xam benen bi ci nak euh bayi len sen misu mbur yi ngeen defar ba pare di wowe kilo matul sax xaju xajaatu gën wal liber jël len mburu tek ko ci bascule ba xam mat na kilo ño xit ñom dal ño xit lañ ñuy jaay na ñu na ñu mburu mi kilo la yeen ban problème ngeen am ak napp nap ni mm, no no senegal boulanger yi nap nañ ñu nag ñoo xit dal lan lay jaay levir ko carbonate ko ba buru mburu bi boko dugale ci four bi man na neuy ba tol ni xeri ay trafiquant de personnalité lañ fi mu ne nii ñoo xit nañu rey ndax Baye Diomaye wàññi nañ ko te wàññi bi mu wàññi mburu mi neexu leen fi mu ne ñoo xit nañu rey ulee ko ñu defaloon ñu mburu mu baax ñoo xit lañ ñu jaay ñoo xit ñoo xit hmm? am leen yërmande ci population bi am leen yërmande ci population bi ah way glace daa seer courant daa seer ah way farine bi dafa seer levure dafa seer carbonate dafa seer yéen yéen lan moo yomb fii lan moo fi yomb li seeroon lépp wàññi nañ ko léegi lan ngeen bëgg yéen état wàññi ngeen ni du ngeen wàññi ci yan raison ay waaye ndaw sàmba état wàññi la lépp yow ngay dem di jënd lu yomb bëgg di jaay lu seer waaye eh, waxu dëgg laa la wax ci fair play ah moo da ngay yaay yaay yaay yow boo lakkul jaay kenn du lakk yow yaay lakk jaay ba Moussa Ndiaye kontaan gàtt sa gàtt sa ngeen woote barki yow man xuloo jël basar nañ leen ci wuy si jaayee leen mburu mi li ko état décret bi état génne xam ne jaadu na yanu na loolu ngeen di jaayee mburu mi ci fair play mënoo leen ko cap point eh, noo ci fair play parce que nag da ngeen a ëppal yéen yéen jaaykatu pain yi yéen ñi nekk ci wàllum section de mburu da ngeen a ëppal seen raxas day fëqi bool da ngay na mën a ataay ngeen fure lay yel bàyyi leen yoyu mburu mi warna wañe ko wara wacc wàcc ngeen bëgg yeen sa année bu ne wañi wa mburu te wa yeen wa mburu yeen nan ngeen ñu nappe yeen ni nan ni ni quoi man yeen yor wala mburu mi nan ngeen ñu nappee lan la ban karam bu ñak fay dañ leen wan ba yeen yor wala mburu mi yeen sa année yeen yene yene sof sof lu quoi ah si gi na seet wañi nan ko ñu yor wàllum ciment ci rew mi xam nan ne lii na ceeb a gina seerta te wàññi nañ ko diwlin a gina seer te wàññi nañ ko coow jibu bal tàkkul waa mburu nag lan moo tax ñu wàññi ko waaye ñu naan waaye mburu mi doon ko wàññi ci yan raison ah wàññi ba Moussa Ndiaye kontaan barke yow mal xuloo jël basar kii naan kii di defu audio naan waaye ñun mënuñoo wàññi boo xafee na jaayee mis mburu fukk ak juróom mooy wàññi ba Moussa Ndiaye kontaan mbaamu mu tëj ci faire peler la force restera à la loi point amul virgule